maa ngi fi Maria maa ngi lay ziar su suba si di ziar suñu invité yi di ziar doyen Mamadou Sy Albert waaw di ziar ñëpp daal. ay ci Ibrahima Camara c'est la team euh, doyen Mamadou Sy Albert bonjour. bonjour sister maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi di nuyu waa kër gi aussi merci. mu ngi noonu tey gis ngeen ne fan yii yëpp on parle d' éducation on parle de de de l' comme on fait souvent di remercier bu baax a baax l' équipe d'Allo Sénégal ñoom Aïcha ñu ngi leen di remercier. c' est parti mais avant ñuy dem ci li nga xam ne c' la une des journaux comme on le fait tous les matins ñu nuyu suñuy invité d' abord on démarre par euh, monsieur El Hadj Malick Youm euh, qui je rappelle le secrétaire national du euh, SAEMS syndicat des enseignants salaamaaleykum monsieur Youm. salaamaaleykum Siste Maria. salaamaaleykum aussi salaamaaleykum Camara aussi salaamaaleykum à monsieur Kane uh-huh. co-débatteur donc profiter de cette occasion pour nuyu également tous les téléspectateurs de la 7TV. Mhm. di ñaanal ñëpp une bonne journée. comme on parle de <laughs> l'édition de la mi-journée. merci beaucoup monsieur El Hadj yi moom mu ngi euh, jiite li nga xam ne jamono ji moo di euh, SAEMS dinañ ci ñëwaat léegi nag gis nañ ne fan yëpp ñu ngi wax lu jëm ci wàllum éducation mu mënuñu ko bañ a euh, moom itam dugal ci loolee parce que quand on parle d'actualité dañuy dégg souvent son nom monsieur Ilimane Abikane moom mi nga xam ne moo jiite li ñuy dippee l'ex-Africa muy société civile foofu la bokk bonjour Euh, bonjour euh, Madame Maria et euh, ami Birima pour cette invitation merci beaucoup mooy nuyu aussi di ñaanal jàmm ñu fekk yëpp donc le doyen si euh, nous souvent très souvent dañuy éclairer sur ses chroniques ak euh, monsieur le secrétaire général de du SEBS aujourd'hui aussi di kontaan bokk ak moom plateau bi di mm. nuyu ñëpp ñu seetaan di ñaan jàmm si ñoom jàmm ci réew bi jërëjëf monsieur Kane alors euh, suñu thème tey dina nekk ci on va parler de l'actualité bien sûr ak ces violences yi nga xam ne moom la ñu noté saayela ci dëkk bi te mu doon mbir yu doy waar am sax des pertes en vies humaines dinañu ci ñëw mais aussi on va parler de l'école sénégalaise si elle a le preuve d'une incertitude defe naa c'est une grande question et ce sont des questions qu'on se pose depuis presque toute la semaine mu nekk lu doy waar côté économique côté social côté éducation mais avant Birama am na loo xam ne moom la yéen a kaay xëyee tey waaw ñu ànd ceeg Alassane euh, du côté de la régie moom la ñuy ubbee chaque jour xool euh, li ëttu yéen a comme ça ñu mën a nekk dans le bain. Mhm. waaw kon euh, mu ngi noonu Maria ñu démarrer avec le journal L'Enquête. Mhm. la paix à tout prix. Mhm. waaw lu dul jàmm jàmm ko gën. lu mu jar ñu jënd. voilà kon tënk nañ ko muy titre journal L'Enquête. Hmm. la paix à tout prix. Euh, tribune ñëw Macky a-t-il rassuré Serigne Mountakha mhm. ndax bu ñu fàttaliku bu ñu fàttaliku bërki démb ci guddi njiitum réew mi dem na Touba mhm. gisante naag euh, xalif général des Mourides foofee ci Daaru Minam mhm. lañu fa wax nag ah ñun xamaguñ ci dara waaye ñu ngi laaj rek question tout tribune moo koy laaj di samp laaj ndax kii di Macky sàll dalal na xelu xalif général des Mourides voilà c'est la question donc euh, tribune après tribune ñu xool euh, bés bi le journal moom it mu ngi ñëw euh, pourtant il se parle qui hmm. qui <laughs> ah c'est une c'est une affirmation apparemment ah, ils ont pourtant il se parle hmm. Hmm? ñu teg ci photo Macky Sall ak photo Ousmane Sonko ils se parlent en couleur peut-être par personne interposée foofu la ñu bëgg a waxee hmm. certaines bon ci sama gis-gis peut-être par personne interposée maanaam peut-être am na ñuy dox am na ñuy dox ci diggante bi mais ñaari nit ñi moom waxuñu moom xanaa bu ñu ah. waxee par par personne interposée parce que bu ñu waxoon bu ñu waxoon du ñu yegsi fii ñu yegsi <laughs> bu ñu waxoon fii ñu yegsi je pense que duñu fi yegsi ñàkkul nag am na ñuy dox tànku jàmm Sonko le bruit du silence donc un silence assourdissant apparemment parce que bu ñu nee le bruit du silence Hmm? maanaam gis nga jeu de mooy am na benn dichotomie bruit ak silence xam nga hmm. àndul donc maanaam pour wane ni noppeem gi hmm, noppeem gi ça commence à peser parce que tàmmalu ko peut-être ñenn ñi dañ daan dégg muy wax chaque quinze jours benn yoon mais depuis le verdict di alxames le premier ba léegi yooyu ci yàbbewu ci donc euh, mu ngi noonu Sud Quotidien ñëw ci Sénégal une économie en berne démb hmm. daanaka suñu thème ci euh, ñu nag waa Sud ñoo ko dëpp woon wàllum éducation la woon tey mu ñëw ci wàllum économie économie en berne mooy maanaam euh, wàllum koom-koom bi dafa taxaw hmm. damul dikkul waaw secteur yëpp tàggatem bi fi ñu toll ni nii 72 heures de manifestation Mmh. des milliards de de fa CFA en fumée mooy yàqu-yàqu yi ragal naa dañ toggaat Euh, fii ay bés di xayma parce que lu yàqu bëri na bëri na bëri na ci alal. Mhm. l'info des milliards dans le vent mooy li mooy li euh, lu ñu wax léegi rek. li Sud waaw mooy li Sud Quotidien wax léegi rek. Mhm. Euh, sinon ñëw na ci Yoro Dia ci suuf loolu moom tamit dinañ ko di ma ci laaj ñàkkul léegi nii. Mhm. ñu ñëw ci polémique boobu ci Yoro Dia le peuple ñëw les dégâts matériels à l'UCAD en chiffres à l'UCAD moom. le peuple journal le peuple dégâts yi ci université la ko yemale mhm. ñun sànq romb léegi sud mu ngi wax dégâts yi d'une manière euh, sur économie bi mais kay def ko xaw a ubbil fenêtre sur euh, l'université mhm. ak bu Soumaré à côté tey dañ ah. koy auditionné voilà sur euh, l'affaire am nañ fa ndaw am nañ fa ndaw bu mhm. génnee télé génn amaana dinañ ko jël mu wax ñu ci lan lañ ko laaj ak lan la tontu populaire appel à des enquêtes Euh, lii nag euh, ab enquêtes yi ay ay institutions inst ñu ngi koy demandé hmm? ay Human Rights Watch wax nañ ci démb. il faut que ñu def enquête ñi dee kan moo leen rey ak lan ak lan voilà te dafay jaadu aussi bu mbir amee ñu xool def ci enquête e, invité à la paix ok donc euh, gis nga xalifa Sall ci suuf moom tamit lettre bi mu adressé démb di woote jàmm. sport ñëw ci wàllum tàggat yaram la fédération suspend toutes les compétitions lii tamit mhm. dinaa ci ñëw parce que démb communiqué yi génn bëri na bëri na bëri na démb moom ci benn journée bi am nañ ci lu mat cinq ba xaw ma six communiqué mhm. hmm? ci wàllum tàggat yaram moom xam naa gars yi nañ am lu leen metti lool lool lool parce que fédération génn na communiqué di xamle ni wàllum tàggat yaram lépp lu ñu prévoir oon comme activité match ak yu ni mel dañ koy daal di dakkal ba jëmmi jamono loolu lépp c'est lié à euh, voilà à à l'actualité à la situation du pays mm. donc fédération génne na communiqué waaw lettre circulaire la génne de la mm. fédération moom laa jàkkaarloog mi di ci wax ni wàllu compte tenu de la situation hmm? mm. donc les compétitions de football sont suspendues sur toute l'étendue du territoire mm-hmm. hmm? ñu jàppee ko noonu football programme bi yëpp kon dakkal nañ ko en attendant waaw waxuñu nag ba kañ surtout de l'étendue du territoire daal kenn du fi joué ci benn match waaw muy euh, ligue de football amateur ligue de football professionnel. Mhm. ñoom yëpp dakkal nañ ko bokk na ci communiqué yi ma bëggoon lire sànq mais heureusement que euh, dikk na ci sax euh, may ma ouverture foofu. Mhm. communiqué yi maa ngi la koy wax sànq Maria démb communiqué yi na benn mooy sport bi. fédération sénégalaise wax ni dakkal na football. am na beneen communiqué Euh, mu ngi jëm ci wàllum euh, université. Mhm. xam nga kudd kudd moo géré vole vole volet social. waxoon na ni tëj na campus bi. Mhm. dakkal na restauration yeeg yooyu yëpp dañ koy dakkal <coughs> étudiants yi nañu génn mais bii rectorat moo génn communiqué démb. Mhm. maanaam ki yor wàllum njàng mi. volet pédagogique rectorat moo wax ni suspendre nañu cours yi jusqu'à nouvel ordre. Hmm? mu di communiqué bu jógee ci recteur bu université de Dakar. ministère de la communication moom génne na dem communiqué di xam ne ni. Mhm. Euh, communication télécom économie numérique di xam ne ni. Ah, connexion bi mu dakkaloon. Mhm. dana ko delloo fa mu nekkoon waaye li ñu seetlu mooy ba tey restriction yi jeexagul parce que. Mhm. connect am am am données mobile rek taxulaa connecté wu ba léegi nit ñee ngi wut ay VPN pour mën a connecté wu. ça veut dire que euh, ubbi nañu connexion bi mais taxul mu dellu fa mu nekkoon avant coow lii di am. léegi restriction yi wàññi nañ ko mais taxul mu jeex. loo loolu c'était à mu am beneen communiqué bii mu ngi jóge ci gouverneur bu Ziguinchor. Mhm. gouverneur bu Ziguinchor mu ngi xamle ni route nationale numéro 4 ak numéro 5 ak route départementale numéro 205 dafa am mën nañ ko tuddee couvre-feu la la lañ fay décréter que 8 heures ba 16 heures Bignona jëm Saleta mën nañ ko ubbi bu weesoo 16 heures dañ koy tëj. Bignona jëm Saleta Saleti Saleti hmm? Bignona jëm Saleti 8h ba 16h lañ ko ubbi Ziguinchor jëm Oulompane 7h ba 18h lañ ko ubbi. Mhm. li ci des kenn mënatu faa circuler. ok Diouloulou Kafountine ba 16h. Mhm. Hmm? donc mu di axe yi nga xamante ni euh, euh, daanaka heure yooyu ñu ci ubbi heure yooyu muy 16 8h 16h pour Bignona Saleti. sept heures dix huit heures pour Ziguinchor Oulampane huit heures seize heures pour Diouloulou Kafountine bu heure yooyu weesoo dañuy tëj yoon yi maanaam day am daanaka couvre fa kenn dootu fa jàll hmm? mu di communiqué bi nga xamante ni gouverneur bu Ziguinchor moom moo ko génne te loolu peut-être dinañ ci dikkaat yeneen jamono parce que dafa am loi yu ñu voté woon ci jamono jamono yu yàggul dara moo may sax gouverneur muy décréter ay couvre-feu parce que bu njëkk amul woon sañ-sañ boobu donc euh, mu nekk ñaata communiqué déjà un deux trois quatre communiqué yi nga xamante ni yëpp démb lañ ko jot. Maria communiqué ministère des affaires étrangères. voilà boobu nag est-ce que doonul bi ëpp ëpp solo mu ngi nii heureusement. Mm-hmm. boobu nag mu ngi xamle ni consulat généraux yu Sénégal am ci diwaanu bitim réew yëpp tëj nañ ko. jusqu'à nouvel ordre jusqu'à nouvel ordre. Mm-hmm. ba jëmmi jamono dañ koy daal di tëj ràpp. Mm-hmm. loolu nag. moo def naa mooy bi gën a doy ndax xam naa ni suñu mbokk moodu moodu yi mooy la diaspora moom bon amoon na ay yëngu-yëngu ni ñu ko gisee woon fii am nañ ñoom it ñenn ci ñoom jotoon a mer wane seen mer ci yenn consul lu ci mel ni Paris Milan ak New York hmm, gis nañ vidéo yi waaw ñooñu ci di ay moodu moodu daal mel na ni mer googu ñu meroon moo waral ñu tëj consul yooyu mm. mais kañ lay ubbiwaat faw mu gaaw parce que carte électeur yi élection Modou Modou yi soxla nañ ko. xaw kañ lañ leen kañ lañ ciy jot. te ñenn ñu ngi laaj ndax euh, yooyu noonu du doon ay prox ndollu pour ñu mën a. ah élection yi di ñëw ñu xañ leen seen seen seen seen seen ak yelleef maanaam ñu voté on n'en sait pas trop mais yaakaar nañ ni duñ fa yegg parce que élection yi mujj yi gis nga ni waa Chine voté wuñu waa Argentine voté wuñu pour bien des raisons mais nañ jàpp ni lii rek peut-être ni mu amee ay restrictions fii ci réew mi ñoomit it du côté de la diaspora bientôt consulat dina ubbi parce que ñoom it voilà mooy seen mooy seen bërëb bi ñu xamante ni ci lañ mën a jokkook administration carte d'identité lépp luy wàllum administration consul su consul lañ ko mën a lañ ko mën a lijjante d' accord merci Birama Kamara mu ngi noonu euh, doyen Mamadou Sy Albert alors on a vu la la une des journaux li nga xam ne moom la ñu xëyee tey avec des des peut-être des titres très diversifiés mais bon euh, l' actualité reste quand même la même mooy que ne économiquement. sa va pas dans ce pays les banques commencent juste à ouvrir forum mu ngi fees dell euh, ñu ngi dégg aussi le secteur informel ñoom tamit ñu ngi casse parce que avaient des commandes et tout te yooyu yëpp mënul jàll éducation ñu ngi koy wax boobu ba tey mu nekk beneen secteur boo xam ne touché na ko on parle tout de suite des des, des Sénégalais de l'extérieur aussi donc mu nekk benn ay conséquences yoo xam ne dafa déboulé ci euh, la situation actuelle du Sénégal waaw li nga wax la noonu la situation de crise lañu ñu nekk ñu ngi ci deuxième semaine après crise mhm. euh, lu am ba am mooy que euh, commencé na dal comment que Sénégal commencé na dal mais nu ñuy gérer dal bi mooy différencier euh, boo gisee par exemple université pratiquement tëj nañu c'est une forme de gestion COUD aussi tëj na bon sport euh, suspension des, des, activités, donc mhm. mécanisme de gestion post-crise. Mais maintenant, quand même, il faut que nous réfléchissions parce que nous avons am expérience Covid. Covid, bi, à un moment donné, avons une réaction confinement. Mhm. ñu xam ne que loolu baaxul confinement bi day gën a ralentir économie ñu relâché je pense que euh, ni ñu réagiré c'est trop rapide Euh, il faut ñu xool naka la ñu mën a gérer parce que secteur comme euh, COUD wala les les universités wala les systèmes éducatifs on presque à la fin de l'année il reste un mois maximum deux mois soo débordé rek soo moytul année scolaire bi day am perturbation donc y a problème de gestion côté boobu bon maintenant il y aussi le sport c'est assez frappant bon parce que quand euh, def suspension de toutes les activités sportives yaakaar mu nekk la meilleure formule est-ce que amul gënul woon ñu mën ko gérer sur un mois deux mois trois mois mu bañ a nekk suspension tout de suite de toutes les activités loolu aussi laaj la bon pour euh, autorité sportive bi xam naa c'est vrai que problème économie bi am na ci sécurité bi am na ci mais est-ce que mënuñu bàyyi xel par exemple euh, soo jëlee sport soo defee suspension nawetaan c'est à partir de juillet août donc dina am superposition dina am perturbation loolu aussi dafa laaj euh, les autorités rek réfléchir maintenant sur les grandes questions bon ça c'est le domaine de la presse mooy que l'économie est au ralenti hmm. ça ça moom Sud a raison de dire que l'économie est en berne Euh, loolu dina am conséquence naka lañ ko nar a gérer c'est-à-dire on parle de l'éducation comme comme sujet mais l'économie est beaucoup plus importante comme ni ñu ko waxee sànq éducation c'est vraiment un pan entier de l'économie su doxul répercussions yu mu nar a am ci secteur informel ci secteur formel bi ça risque d'être dur pour la fin de l'année et je pense que loolu aussi laaj na comme ni ñuy discuter euh, éducation mais l'informel pourquoi pas un débat c'est comment gérer l'informel dans les périodes de crise mm-hmm. bon c'est la même chose pour euh, pour l'internet je pense que le meilleur exemple mooy internet mm-hmm. coupé nañu pendant deux ou trois jours conséquences yi c'est des milliards c'est des milliards donc gouvernement a été obligé ñu ne nañu rétablir progressivement et mm-hmm. loolu aussi il faut que ñu jéem a réadapté wu pour euh, on est dans une situation de crise comment gérer les périodes de crise mm -hmm. je, pense que loolu bon maintenant il y a un point un point particulier euh, mooy euh, bon l'histoire de la paix à tout prix Sonko euh, Macky Sall ça aussi c'est un débat ah. c'est comment sortir de la crise am na lu ko indi na ñu koy gérer nañu lan la ñuy fexe ba bon jàmm dellu diggante euh, acteurs politiques yi parce que ñoom ñoo créer crise bi mm-hmm. donc su amee solution bon Euh, il faut nécessairement quand même que sénégalais yi acteurs politiques yi comme les chefs religieux on a mm-hmm. parlé de Serigne Mountakha bon là aussi bon je pense que il faut que nit ñi réfléchir parce que Serigne Mountakha quand même soo xoolee deux mille vingt et au moins gère na crise boobu. Mhm. avec ses émissaires mën dialogue discuter am conclusion mais conclusion am na ko appliqué wul conclusion yi mooy gouvernement bi. Mhm. donc kook soo buggee mu ñëwaat. Ah. ci crise bi bu gën a tàng. bu gën a jafe dina ci tey. bon day tey. Mhm. da ciy tey. donc là aussi il faut que les gens les acteurs politiques réfléchissent comment impliquer le leader religieux. parce que kadduram rek la yore. Mhm. mais kooku waroo ko dugal ci ay euh, difficulté après. Ça, il faut qu'il y sincérité. Mhm. Comme j'ai entendu euh, yenn euh, certains acteurs dire que dialogue bi par exemple sëñ Mountaga su nekkoon costion morale bi ngeen toog ngeen ñëpp ngeen waxtaan tous les acteurs conclusion bi ñu wax ko sëriñ bi sëriñ bi teewe xalif tijaan teewe xalif yëpp teewe mais ñooñu kenn du ñëmati ñëwaat seen gannaaw pour ne leen que lii ak lii. donc il faut une question morale parce que euh, bon euh, ils ne se font pas confiance. Mhm. je pense que loolu c'est une médiation qu'il faut ñu réfléchir que maintenant nag le gros gros gros problème mooy président Macky président il mu wax ak. il faut mu wax ak ak askan bi on attend de voir peut-être dina génn dina wax on attend aussi ñëpp a ngi xaar parce que ñu ngi gis tey ñu ngi naan non blocus bi dindi nañ ko benn journal mu ngi ko bind déjà ne blocus bi dindi nañ ko alors que ce n'est ñi nga xam ne ñoom ñooy xëy cité kër góor gi man mun naa ko mun naa ko seede gis nañ ne que. dispositif bi fa nekkoon moo fa nekk ba léegi donc ce sont des des informations yoo xam ne parfois bu ñu ko joxee mën nañ jaxase xelu nit ñi donc rien rien n'a changé là-bas la fa nekkoon moo fa nekk ba tey donc bu fekkee dafa am lu changé ci biir aussi peut-être ñoom ñoo ko gis mais daal euh, presse aussi comme on dit tous les jours am nañu euh, li nga xam ne moo di responsabilité euh, par rapport ak ce qui se passe dans ce pays alors monsieur Youm may fàttali ne yow yaay secrétaire national bu SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire may ci profiter di nuyu bu baax a baax suñu grand Sawru Sène on le recevait souvent ci ci ci 7TV situation baa ngi noonu on parle de l'éducation parce que bu ñu waxee université wax école primaire ak yooyu c'est vrai que ñu ngi jàng pas trop. C'est ça. nànk-nànk. Mm-hmm. on a vu que lycée Blaise par exemple ils ont repris les cours mais du ñëpp ñëw ñëw waaw. voilà sister Maria donc comme ni nga ko waxee actuellement bu ñu doon analyser situation dañuy wax ne retrouvé wu nañ nag léegi ci guuta dugg nañ ci guuta dugg nañ ci ma doon wax yu leer mm. dama naan léegi li nit ñi doon bañal Sénégal yépp mujj na am mujj na am mujj na am li ko waral mooy dëkk bi dama yàgg di dégg ñuy wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar <laughs> ñun bi ñu koy wax boobu ñun juddooguñ ñu ñëw fekk fii slogan boobu di ko dund mais da ngay seetlu ne tamit bu ñu demee ba ci biir a biir ci kàddu yi la yem nit ñi jëfewuñ ko ce n'est waaw te gis nga problème bu amee dama koy wax fépp fi ma jaar analyse amul raay raayal amul man li ma jàng ci école de gestion mooy bu ñu demee ba problème taxaw toujours dafa am li ñuy wax l'arbre à problème. Hmm. arbre à problème dafa am li ñuy wax les causes am li ñuy wax les effets causes yi moo nekk ci suuf effets yi mooy branche yi ci kaw la ne. Hmm. kenn du analyser problème à partir des effets kooku da ngay juum problème bu taxawee ñëpp ñi nga xam ne c'est des spécialistes dañ lay wax ne da ngay dellu ci causes yi gis nga causes yooyu dañuy dem ñu set lan la ñu liñ mbëj ba xam lan moo doxul li doxul nag ñu teg ci loxo duut baaraam ne lii la. kon tey Sénégal foofu la toll. parce que ñu ngi ñun ñëpp approche solution waaw sëriñ si nañu wax waaw sëriñ si ñoom solution lañ yor. waaw bon ñu ne ok na ñeneen ñi wax na kii wax nañ def dialogue loolu yëpp c'est bien mais avant solution bu dee ne dañu ne les mêmes causes produisent les mêmes effets kon nañu jàpp ne bu ñu tabaxaatul suñu jikko yi ñu bàyyi yi ñu nekkee. même bu ñu ñëwee ba trouver solution solution taf yëngal lay doon bu ñu ci génnee musiba mooy ñëwaat. maanaam dañ koy maslaa rek. dem nañ bàyyi maslaa bi. Mhm. léegi nag lool moo tax tey man de analyse bi may def depuis le début damay wax ne li xew ci dëkk bi c'est la responsabilité des acteurs politiques ñoom ñoo ko def. Mhm. ñoom la. ñoom la amul ay seet de midi à 14h ñoom ñoo indi problème ci dëkk bi. problème boobu léegi nag moo indi ay ramifications dans tous les secteurs. Hmm. amul secteur bu rëcc. looloo tax ngeen woo ma fii tey parce que secteur bi ci gën a loru. Ah, mais secteur éducation ñoo ci njëkk loru sax. est-ce que dañu mës gis ay université ñu koy taal est-ce que mus ngeen gis ñu taal ba taal plus de dix établissement tey am na ñu wax treize ministère seen statistique treize la ñu man suma représentant bi nekk secrétaire général régional bu Ziguinchor mais wax na ma plus man. d'ailleurs daf ma ne l'innovation là-bas bon si on peut parler d'innovation entre guillemets c'est que dañu taal ba bàyyi léegi école publique taalaale ah, ay école privée abri provisoire dañu taal école privée léegi abri provisoire bàyyi école publique yi taalaale école privée donc yooyu ay indicateur ay signe la yu ñu war a jël suñu courage ñu analyser ko donc pour man étape bi ñuy sauter ñun ñëpp parce que ñëpp tiit parce que tamit Sénégal comme li ñuy wax réewu teraanga réewu jàmm nit ñi di nax seen bopp di foog ne waaw sénégalais ñemewul dret comme yooyu ñuy wër di wax sénégalais ñemewul dret kooku ku xamul nit nit la mm. benn modèle de nit bi moo nekk fii moo nekk euh, Ukraine moo nekk euh, fële nga gis ne mooy moo moom fii euh, chez Poutine ah la Russie moo nekk fépp nit dafa am loo yëngal si moom wala nooy def ak moom mais mu wane la beneen côté li ñuy wax le côté animal mm-hmm. kooku mu ngi ci ñin ñëpp ñuy dox ce qui fait que le côté bestial tey violence bi mais côté bestial bi moo génn am na sax man théorie bu ma partagé wul ñenn ñuy wax ne woy woy ñi ko def dañ fi ju juuxuñu fi ñu ngi fii si biir societé bi il faut ñu xam ne acteurs politiques yi fi mu toll nii dañu war a assumer nag seen responsabilité. parce que tragédie bii ñu def nii quand léegi moom da leen di wan ne quand ñoom jéggi nañ la ligne rouge bi ñu waruloon franchir. Mhm. te pourtant dañ leen doon wax ak ñoom ñun par exemple en tant que syndicat responsable. su ma la wanee communiqué yi ñu bind ñun depuis plus de d'un naa ou si six mois topp di alerter bàyyi leen on appelle à l'apaisement bu leen def nii bàyyi leen euh, jàmmaarloo bi bàyyi leen saagante yi bàyyi leen xaxarante yi bu nit ñi di marche dañ leen bàyyi ñu marche parce que li ngay soxla ci ay force pour mater une marche boo jëlee moitié bi di nga encadrer marche bi ci jàmm ak salaam ñu dem seen yoon alors jàpp gi pour la tey bu ma la mënee mënatuma la man defal statistique gu enseignants yi njàpp lu tax man bu ma génnee fii léegi su ma la waxoon benn chiffre bu ma génnee ñu woo ma e jàpp nañ ñaar fii EG jàpp nañ ñett kenn mënu la ko wax dafa leer li ma la wax mënuñ la ko wax démb Koumpentoum ñett bërki démb Ziguinchor ñaar nga tourné waat ñu woo la ne la fële euh, euh, euh, Saint-Louis fu nekk mais mënul loolu mënul dem parce que en fait tey da ngay dem ba nga rendre kon maa ngi dégg benn euh, kii mu koy wax ce matin mu ne li ñu yóbbu ci kaaf ba ak li ñu jàpp kenn mënatu ko estimer ëpp na téeméer mais ëpp na téeméer nga dem tey Màkke ñu ne la jàpp ne ma ñu woo ma jàpp nañ ci jàpp donc pour man tey repression boobu tamit dafa war a taxaw nañu jël suñu courage ñun ñëpp alors ñu dem toog en tant que force vive de la nation mais ñu def analyse analyse boobu bu kenn yërëm kenn nañu xool li doxul li doxul xam nañ ko mooy que man li may tënk sax mooy au Sénégal politique amu fi mais politique politicienne moo fi am nañ ko arrêté mhm. et le slogan man bi may développé mooy halte à la politique politicienne nañ arrêté loolu buñ ko mhm. arrêté dëkk bi génn ci loolu mhm. donc loolu moo ñu indi lii yëpp alors tey bu ñuy wax tamit ci kanam peut-être le bilan de l'école dinañ gën a approfondir mais jalgati ay àqu en fait te tey dafa am lu may fàttali souvent parce que dañuy singali enseignants yi après dañ si wax peut di leen accuser la politisation de amul benn politisation de l'école xam nga ce mooy la politique dafa dugg ci administration bi dafa dugg fépp parce que tey en fait dangay dem ba toog xool nga xam ne li ñuy wax les principes et les règles de l'administration publique sont bafouées parce que boo demee di ko jàng dañ lay wax ne principe bi su njëkk c'est le principe de la continuité de l service bi war a kenn amul pouvoir pour arrêter nga dem beneen principe bu ñuy bafoué le principe de la neutralité si loi la nekk. Mhm. nit ki bu dee da nga occuper position centrale yow danga war a neutre mais tey da ngay dem service yoo xam doo fa gis loolu le principe de l' impartialité fa am solo impartialité liñ bind si loi ñu ne tey boo demee ñu lay rendre un service ci service su état bi yëpp ki la koy rendre da nga war a jàngat si taxawaayam ne kii moom farul fa jàngul jàngul. jàngul hmm, le principe de l'obéissance hmm. alors yooyu yëpp nag bu ñu demee ba ñu koy salfaañe nga gis ne xamatoo lan ngay gis koo xam ne kii dafa nekk ci koor boo xam ne nii lañ leen xamee après moom muy def leneen nga mais donc dëkk bi moo yëg ci foo xam ne fii tey avec les acteurs politiques mais faut que ñu wax leen dëgg parce que man dama yàgg di wax ne man damay diriger benn syndicat boo xam ne nous nag n'acceptons pas le dictat des acteurs politiques duñ ko nangu. ok parce que ñoom dañu bëgg a seen loi et on n'est pas dans ça pour ñun y a une troisième force une troisième voie qui est aussi valable que seen voie ñoom buy taxaw di xool tamit te lépp lu nga xam ne c'est des questions d'intérêt national dañ ciy wax mais ñun dañu bëgg que ñu respecter le principe de l' état de droit. l' état de droit pour pour pour tënk su ma ko tënkee daal euh, dinañu ñëw wax ci li nga xam ne moo di bilan bi nga xam ne moo nekk ci école yi métti na dinañu xool ba xam enseignants yi ni ñu leen téye itam métti na mais su ma ko euh, su ma jàppee tuuti ci sa wax mooy ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mu toog société civile Lex Africa monsieur Elimane Avikane alors. nan ngeen jàngee réew mi yow danga nga ba sonn dégg naa la lu bëree bëree bëri bëri ñu lay interviewé ngay wax tout le temps ngay alerté bu bëree lu bëree bëri bëri. Euh, merci beaucoup. parce que wax nga sa da nga may rassuré parce que. dañu jàpp ñun dañu wax waaye du ñu déglu. ba waxee lii c'est parce que au moins am na ñuy dégg. te loolu moo nekk problème mu réew mi euh, euh, ma d'accord nag ak yum ci d'abord démarche bi mu teg. naka la ñuy appréhender problème bi ak aussi constat bu mu def. Euh, mhm. par rapport ak euh, la cause direct mais je dis cause directe parce que euh, la cause est encore beaucoup plus profonde. Euh, parce que acteurs politiques yi c'est vrai ñoom ñoo fi indi li fi ne. Mhm. mais société bi moo leen ko may tam. Mhm. parce que dafa am rapport bi nga xam ne ni moom la ñu am ak suñu état suñu république suñu institution bu dévoyé. ba tax ne tey les acteurs politiques dañuy fekk société bi ci fu mu gën a yombee jaar leen foofu pour ñu mën a am lu ñu bëgg euh, mooy souvent li ñu woowee clientélisme politique bi nga xam ne ni mhm. finalement loolu moom moo nekk l'approche politique dans ce pays là moom lay woowee politique politicienne parce que politique nga xam ne ne dafa noble mhm. euh, te mu te mu soxal képp ñëpp su ñun c'est-à-dire citoyen bu ne rek yow da ci bokk parce que politique li ko tax a jóg mooy fexe ba bokk ci lijjanti li nga xam ne ni moo jëm ci sa si cité mhm. muy commencé ci gox-goxaat yi ba li ñu bokk ci kaw mhm. loolu nag niñ koy defee dañ ko mujj bàyyee ñenn ñi mhm. dox leen ko en procuration euh, loolu nag lu ko indi mooy aussi choix bu ñu def si démocratie représentative maanaam Euh, démocratie boo ko déggee déjà dafay interpeller askan mais askan bi yëpp la waxal c'est-à-dire ku si ne war ngaa mën a dugal sa loxo ci liy xew ak li nga xam ne ni noonu lañu ñu war a doxalee ba di jël ay décision di ko fi teg mhm. yow tamit nga am sañ-sañ ci décision yooyu bu baaxul nga daal di ciy jóg daal lu koy wax su baaxee nga daal di koy dëgëral daal lu koy yokk mu gën a law mhm. euh, waaye li am mooy euh, dañuy tànn ay nit c'est la démocratie représentative ñu ne ñoo fi nekk ñeneen ñëpp jox leen ay moyens pour ñuy décider di doxal à partir de la nag la responsabilité dafay ñëw ci ñooñu. Mm-hmm. Euh, parce que tout simplement li ñuy teg di doxal chaque jour muy wàllu politique publique mais muy wàllu aussi comportement yu ñuy am. parce que ñoom miroiru société bi lañu. Mm-hmm. loolu mooy tax mbir yi mën a baax wala mu jàng. Mm-hmm. Euh, ñu jàpp nag ni ñoom wax dëgg fi yàlla safaan bi moo am. dañ ko jéngal dañ ko jéngal parce que nit ñaa ngi fii seen i problème rek la wuñu ko li ci ëpp solo ci lu ñuy def effectivement mooy éducation mhm. syndicats yi chaque jour ñu wax problème yi ñun ay parents d'élèves ñu ngi koy dund au quotidien mhm. ba dépassé sax ndax école parce que société bi ci boppam def éducation au grand sens du mot moo fi amatul mhm. te loolu dama ci am benn misaal ci suñuy responsabilité ñun et la je parle toute la génération parce que réew mi warul yàqoo suñu ay loxo ñun suñu génération. parce que kon dinañ am gàcce gu rëy. Mhm. lu tax ma wax loolu mooy transmission bi ñu war a def génération yi di ñëw dafay nekk di yàqu. Euh, kenn daf ma yónnee tey si suba benn post bu ñu def si euh, Twitter xaw ma wala Facebook. Mhm. Euh, muy wax ne moom dafa lu ko jaaxal dafa observer seen koñ di gis xale yi du ñuy fowee. mu ne xale yi léegi xam nga mooy seen fowukaay policier. contre manifestant mm-hmm. loolu la gis suuf si la ñuy comme gaz lacrymogène di ko sànnante xeetu jeu yooyu moo am mais loolu c'est pas banal c'est pas parce que bu demee ba xale yi seen bopp xale yu ndaw yi finalement li mag ñi def la ñuy toppandoo mm-hmm. di ko defee noonu mais xale ñun ñi jàng psychologie xam nañ ne foofu la personalité ak une certaine conscience mm-hmm. di construire al xale yi finalement bu ñu jàppee ne loolu mooy dëgg parce que pendant deux semaines bala lu ko ëpp sax loolu la ñuy gis léegi finalement loolu ndax nga ñun yeneen xeetu faw faw lañu daan def ah. mais ñoom bu ñu bay def loolu c'est-à-dire que nous sommes en de transmettre aux futures générations mm-hmm. une culture de la violence mm-hmm. et des clivages de l'affrontement c'est-à-dire te loolu moo am ci dëkk bi tey jii mu wax ci lu am solo c'est-à-dire on est dans une société clivante dafa fissuré wu tas ay par ah. te loolu lu ko indi lu mu wax dëgg la politique bi dugg ci biir état bi fépp foo dem parce que état ba comme le disait l'autre c'est le bool état central. c'est le bool fa la mhm. fa la ñuy séddoo euh, le bol. Mhm. parce que ressources yi ci état bi lay jaar. Mhm. léegi fayitu politique bi bu moo tax léegi pour nga dugg ci parti politique du parce que da nga am sitoyen bu bëgg a wu defar sa réew. parce que parti politique ñoo leen daan former nit ñi. di leen former dem ay école du parti pour ñu xam lan mooy état lan mooy démocratie lan mooy république xam fu ni ñuy war a doxalee. Mhm. mais loolu defatuñu ko. parti politique li ciy dugal nit ñi xam nga lan la tey naka laay fexee ba alalu réew mi fu ñu koy accaparer du ko séddoo bokk fa. comme ça ma jël ci sama wàll. Mhm. c'est ça finalement l'esprit militant. Mhm. Euh, damay dindi sax terme militant l'esprit d'engagement dans les partis politiques. parce qu'on a fait croire aux gens que boo politique doo am xaalis. am dara donc dégg nga ma donc léegi finalement ci biir administration yi foo dem effectivement clivage boobu am na fa euh, loolu mooy tas ba ba ñu dem ci ay décisions yoo xam ne décision d'intérêt national d'intérêt public lay doon mu donc finalement décision yoo xam ne ni dafay sauvegarder un mhm. intérêt particulier loolu moo indi sax ba ci li ñu mën a wax ci tey état bi nu muy gérer crise bi et j'ai doyen mu def parallélisme ak Covid Covid bi ñu dañ ci def jàngat. Mhm. yaatu sur la gouvernance de la riposte de de l'État du Sénégal ñu gis ci ne <clears throat> Covid bi euh, euh, ci gouvernance bi décision yi ëpp ñu jëloon jël. c'est décision yoo xam ne da doon renforcer le pouvoir du président yéen ngi fàttaliku la loi d'habitation mm-hmm. bi mu jëloon et cetera mm-hmm. mais dafa restreindre les libertés des citoyens ba mu am ay ay ay ay résistance mm-hmm. justement le terme am ba affrontement yoo xam ne ni ba ci biir Touba bi nga yoo xam ne ni y a une personnalité morale boo xam ne ni ñëpp a ko respecté donc am na défiance foofu donc même chose la ñuy gis ci fii nii tu vois donc c'est la répression et, et avec des escalades escalades yi mooy lan mooy ñu ñu accès ba di limité accès à internet boo xam ne ni ci waxtaan bi informel gën na fi. Mhm. suñu économie mais quatre-vingt-dix-sept pour cent de nos unités économiques c'est pas moi qui le dis c'est l'ANSD mhm. l'informel en plus boo jëlee internet bi parce que ñun ñi amoon peut-être privilège am fi suñu kër rek ñoo mën di connecté mais dara mobile ñu koy utiliser c'est quatre-vingt-dix pour cent hmm. des des utilisateurs d'internet au Sénégal hmm. données mobiles la ñuy utiliser hmm. donc tu vois ni finalement sénégalais yu gën a sonn la ñu gën a yokk coono ci restriction yooyu te ñooñu seen problème mais moo tax affaire bi méttee ni mu méttee nii moo tax Sénégal métti c'est pas parce qu'on a un opposant intrépide no parce que on a quelqu'un qui a fait face à un régime boo xam ne ni ñu ko mere dañoo bari frustration yi dañoo bari et puis. Euh, les gens se reconnaissent à travers. Ah, non une arme. Mhm. contre le régime. qui n'a pas su régler le problème depuis des années. arme boobu nag mooy celui qui dans l'opposition s'est présenté comme étant le plus virulent. Mhm. contre celui qui est indexé comme étant le responsable. c'est ça mhm. qui a fait Ousmane Sonko. alors mais donc li ñuy gis ni ay ay réaction fond bi mooy racine yi muy wax maanaam reen ci arbre à problème bi hmm. mais euh, c'est la précarité économique euh, c'est euh, nekk si duñ si génn mu yàgg dem dem ba yaakaar ne c'est ça qui normal muñ voilà c'est la jeunesse qui est ne qui n'est pas prise en charge 72 pour cent moins de 35 ans dans ce pays voyez-vous amul benn prise en charge et parmi cette jeunesse ñu nekk ci population active yi 33 pour cent am na si ñoo xam ne ni bu suñu dugg école c'est-à-dire non scolarisé amuñu benn xeetu njàng amuñu benn formation mais loolu loo leen di def boo leen wutalul ay solution pour ñu xam ne am nañu avenir mais dañ ñoom ñoom nañu wut solution solution bu ñu njëkk wut mooy ban nañ dugg ci gaal yi dem mais nga dégg nga ñàkk a dee en tout cas moo gën ngay torox fii mais léegi bu ñu demee ba yoonu gaal bi ñu àndige ko te amul beneen solution bi ñu leen jox mais effectivement dañu wut yeneen xeet solution mooy kon nañ ñafe affaire bi fii nañ dee benn yoon fii donc ñooñu bu ñu demee ci mbedd mi xam ne ki jàkkaarloo yow war na la mën a rey même loi bi may na ko permettre bu tollee fenn mu dóor la nga dee yow doo ko faale da nga naan moom ma dee ak ma régler sama problème maanaam ma jëlee fi li booy naan bu déggal voilà donc foofu lañ toll loolu nag mooy racine du problème mhm. donc loolu la ñu war a xool parce que loolu boo ko réglé euh, euh, euh, alors di nga ci génn mais dafa am luy yokk ci xar bi karaw. problème boobu bu amee ba pare ñi koy dund di gis na ñiy yow réew mi ñoom nekkuñu fii ci dëgg justice bi yemalewuñu ñëpp éducation bi am na borom alali seen éducation ñu ne ñu néew doole yi amuñu pexe. lépp loo jël ci société bi dafa am clivage boobu dafa am fissure boobu dafa am Sénégal boo xam ne ni ñoom ñu ngi jot ci. Euh, affaire yi di lijjanti seen i problème nu mu mën nu mu toll ils peuvent faire face am Sénégal boo xam ne ni c'est un Sénégal laissé pour compte qui se débrouille mmh. système de te même star si débrouille diis bi ñuy am day ñëw di leen ko gàllankoor ci ay lois yu ñuy teg donc c'est ça le fond du problème euh, moo tax nit ñi dañuy sawar finalement dootu sax xalaat dañ naan noonu ñi ñooy problème bi Macky Sall ak ñi mu àndal ñooy problème mm-hmm. parce que ñoom it ñu ngi fi di def loo xam ne ni kenn xamul lan la ñu ngi bëgg jël diw dañ ko porter plainte dëgg la citoyen la war na dem moo tax communication bi ni ni muy jàllee aussi ku nekk euh, finalement parce que lu tax parce que on n'a pas assez d'espace pour ñu mën a am la bonne information ñëpp jot si et ñu wax nit ñi dëgg loolu mooy wax parce que bu citoyen bi gisee ne ñi leen jiite wax leen dëgg rupture confiance dafa am dégg donc loolu moo tax euh, lii nii nii mën na nekk ba pare ñu ci gis yeneen yow justice ñëpp lañ fi nekkal mais boo gisee justice boobu muy demee ku ma ndey am ndey ku ma amul ndey dootoo ko gëm boo gisee ne réew mi lu gën a am solo mooy alalu réew mi bariwul mais chaque jour yéen ngeen wane ñu wala ñu gis benn rapport boo xam ne c'est des institutions dédiées à cela ñoom ñoo koy def ne ñu ah diw de lu na alal bi diw respecté wul loi bi def na ndaka sadul noonu nga xool conséquences yi muy ay milliards yu dul jeex ci réew moo xam ne ne lépp la manqué ngay toog ak ah lii dinañ ko faj ba ba naan nu koy waxee ba. ba lépp tàbbi géej. lépp tàbbi géej forage daal di xëddem. ba ba pare moi je pense que. mais lan ngeen bëgg. li nga wax noonu dafay rupture de confiance boobu dafa am à tous les niveaux. Mm-hmm. à tous les niveaux. Mm-hmm. au Sénégal. dafa am ku nekk yaa ngi xool naka nga war a jaar rek pour nax sa morom bu bu parce que bu fekkee nit ñi dañu dem ba perdre confiance par exemple ci politiciens yi laay wax ah moi je dis pas le pouvoir l'opposition man pour man. <laughs> globalement bu ñu demee ba perte suñuy repère ci côté boobu. parce que mm. xëy na ñoom la yaakaaroon pour ñu doxal réew mi. Mm. dem ba gëm ne ñun li ñu tubaab bi gëmloo mooy que ne boo deful politique. Mm. yow mënuloo jiite réew mi. c'est ça loolu lañ gëm. loolu lañ mës a gëm loolu lañ mës a dund système système boobu lañ mës a dund exactement te ñun nag ñun ñun safaan ba lañ jox man boo gisee lu tax man man mënuma dugg ci parti politique parce que loolu la dama gëm ne parti politique munul mënuñu yóbbu ñun ba ñu am ñu gën si ñun ñu jiitee ñu Sénégal mënul nekk tant que nii lay jaar si parti politique ak système électoral bi nga xam ne démocratie électorale li ñu ko organisé parce que non seulement wax naa la cinq parti ni ñuy doxee tey léegi moo tax ay c'est des grands consortiums de business coalition yi ngay gis nii yëpp. ku ne day dem wuti sax sa këyitu parti parce que pour nga mën a nekk actionnaire ci business bi. Mm-hmm. bokk ci ay coalition fexe ba nekk ci nguur gi. même nekk ci opposition. régime bi di la entretenir. Mm-hmm. yëpp daf fi am am na fi nii donc donc moo tax ma gëm ne ma loolu du defar Sénégal moo tax man mënu ma dugg ci parti politique. Mm-hmm. même bu bees booy créer parce que gëw ma loolu li ma gëm mooy société bi la ñu war a defar. au fond te loolu lu koy defar mooy créer de faire émerger une citoyenneté boo xam ne ni dina tax ba parti politique yooyu nit ñi leen di beddi neewal leen doole ci askan wi. Hmm. ba pare citoyens yi di jëlal seen bopp ay initiative defar ko ñeme ko ñeme ko waaw ok mu commencé seen gox goxaat yi dañoo te yooyu dafay commencé am boo gisee dafa am ay initiative de solidarité yu commencé ñëw nga surtout ay jeunes yoo xam ne ni problème amee loolu ñu ñu njëkk a xalaat mooy naka la ñuy def pour aider ñi nekk ci ay problèmes. par am gis nga ba ñu waxee Ziguinchor di fa xaw université bi ñu tëj ko. Hmm. mais Ziguinchor li fa xaw doy na waar de yéen waxu leen ci souvent as ki suffisamment euh, ñu dem ba ñuy violer ay ay étudiants. Ah foofu am na jeunes yoo xam ne lu ñu def. ce matin rapidement organiser ay caravane pour fexe ba étudiants yi mën a ñibbi seen kër. rapidement def nañ ko daanaka presque ñëpp dem nañ hmm. mais a état bi boobu mais même fii ah université Cheikh Anta Diop hmm. c'est aussi de signaler am na benn association bu nekk foofu ay étudiants la ñoom tamit social la ñuy def le même jour dañ doon dajale dañ doon def ket pour dajale pour pour mën a jox étudiants yi bien ñenn ñi amul transport parce que dafa leen bett ñu mën a ñam ñibbi seen kër yi étudiant solidarité bi dara ñu ne xëy na demal ñibbi ah. yore amoo mbokk fii amoo mbokk Ziguinchor nooy def bu ñu la jàppalewul te pourtant état bi mënoon na xalaat loolu. mënoon na xalaat def accompagnement mais ay citoyen ñoo ko def. Mm. donc tu vois. loolu mooy war a construire man de ci loolu laa nekk. ok xëy na nag jusqu'à présent n'a pas encore réussi parce que bu ñu réussir woon lii am léegi nii du am mais ça veut yow boo gasee. ñett ñeneen ñi ngi suul bu fukki nit di gas fukki nit di suul voilà loolu xam nga lu tax ñu di ko def ku ca nekk dangaa ngaa bëgg a mooy li ngay wax rek moo tax pour ñu gëm leen day métti lool euh, bon man li mu bëggoon wax dafa mel ni grand bi waxal na ma ko. parce que jëloon naa note pour wax ni li nga xamante ni moom mooy jeunes yi doon am yaakaar ci dorado di côté de l'Occident ba mu jaral leen ñuy taylu seen bakken di jël gaal yi jeunes yooyu tey bu ñu demee ba yoon boobu ñu tëj ko mais écoutez dañ naan ku mën a jël gaal sacrifier sa vie boo eggee baax na boo yeggul tamit ça kooku noonu taxaw di jaamaarloo ak li nga jàpp ni injustice loolu du dara ci yow hmm? je pense que jël gaal affronter océan moo gën a métti fuuf gën a risqué taxaw di jaamaarloo ak nit comme yow léegi comme fee tëj nañ ko ñoom léegi amatuñu pexe ñu ni xaaral ñu xeex ko fii peut-être comme tekki mënatuñu ko am fee dañu koy xeex fii jële fii li fi nekk par A par B comprendre te apparemment loolu la doyen euh, loolu la grand élément doon wax léegi nii euh, mu nekk li nga xamante ni aussi am na fu muy waxee ni euh, politiciens yi walla état bu représenté askan wi te askan wi gisuñu seen bopp je pense que loolu la nit si doon wax bi muy euh, traité l'état de monstre froid euh, Nietzsche disait que l'État est le plus froid des monstres froids. Qui te ment froidement. Et à, qui te ment froidement à travers sa bouche, mm -hmm. il dit, moi l'État, je suis le peuple. Alors que l'État, qui est l'État dans tout ça? L'État, kenn mënu ko làmb daj ko. léegi yow bu fekkee da nga état bi man la fi nekkal te état bi jëf yi muy jëf yi gisuma ci sam bokk mais écoutez da ngay jàpp ni kon état bi c'est pour la dafa créer benn bourgeoisie ñoom ñooy neexle ñoom ñooy wax ci sama kàddu ñoom la seen affaire dox man je suis le pour compte man population bi donc sama maire su ma bëggee marche ñu tere ma ko su ma bëggee ñaxtu ñu tere ma ko su amee occasion bu ma wanee sama maire non écoutez kenn du ma téye donc bu ñu toogee naan Sonko moo ni xale yi génn leen xeex fii ku nekk booy xeex sa bopp ngay xeexal je pense bien parce que sa dépense bi ngay yóbbu sa kër wala li ngay li ngay dundale sa bopp yow yaa koy ñafal sa bopp donc booy xeex dangay xeex pour wane sa mer ak pour wane ni je suis contre l'injustice teg nañ fi euh, ñaani bañ naa ou je sais pas trop di xeex courant bi ñu doon yokk mais loolu am naa gis naa fa ay mag yu am plus de soixante-dix ans ñooñu ñu ci xeex bi pourquoi courant bi interpelle leen parce que dañuy fay courant te mënuñu supporter courant bi di gën a yokk donc combat bu nekk nit ki boo ci gisee sa bopp da ci ciy boo ci gisul sa bopp ba toog sa kër. c'est je pense que loolu la quoi. Hmm. responsabilité personnelle la responsabilité individuelle la voilà. ku nekk xam ni ngay xeex. voilà mais en tout cas l'état moom. moi je pense que ñu koy incarner ils ont intéret muy ñu fi nekk muy ñuy waaj ñi ils ont intérêt à ce que ñu jéem ma gën a jubóog population bi maanaam di wax ci turu population bi. Cour des comptes ana rapport bi mu fi génnoon. tur nañu lëndëm kenn waxatu ci. c'est hmm? bi. nit ñi bi ñu ko déggee daf non mais daf am na ñoo xamante ni dañuy bettu ma woon xamoon nañ fii lay jëm rapport boobu nit ñi ñu ngi ko doon xaar attentivement mais justice dafa jël tout son temps ba fi ñu toll nii nee nañ ñu am na ñu jot a auditionné mais mbir mi bu ñu ko defee woon ni ñu gérer dossier Ousmane Sonko kon instant bi Cour des comptes regle nañu cas rapport bi wax nañ ki jël ki jëlul leer na nañ. fast track bi ñuy def ci dossier Sonko di ko taf tafee dañ ko taf tafee ci rapport Cour des comptes ak yeneen rapport yi nga xamante ni jàpp na ay nit yi nga xamante ni dañuy jiiñ ni dañoo luubal alal réew mi. c'est bu bu man mi su ma. lu Birame yi wax nii ñu bëri di ko wax aussi ci dëkk bi parfois parfois nga toog ba si yàgg nga ne est-ce que noonu la demee mais ñun li ñu yàq ñun ci suñu réew mi mooy far. ku nekk da ngay am fooy far mais gis nga fu dëgg féetee itam. Mm-hmm. da nga ni nga wax léegi monsieur mm-hmm. Youm. parce que aussi bu dee sa kër gis lii lii di dox nii tey c'est parce que danga bokk. ci mm-hmm. politique bi moo tax nga mën a am yenn privilège yi. yow bokkuloo ci politique mënuloo bokk ci dara tey jii bu ñuy séddale par exemple pas séddale bu ñu doon joxe contrat sax. dañuy xool ki nga xam ne moo bokk ci ñun. moom la ñuy jox contrat ku ci bokkul duñ la ko jox ce sont des injustices yoo xam ne ku fi mën a ñëw nag. ci état. mais du yoon moom la ma injustice. moom loolu lañ mës dund mais léegi day continuer ba kañ. parce que moi je disais souvent euh, sa maam du ma du jiite sama maam sa papa jiite sama papa sa doom bëgg a ñëw jiite samay doom yow nga jiite ma sa doom ñëw bëgg a jiite ma léegi nag ñun bu ñu xoolee. Mhm. dinañ yàq base bi base bi c'est la famille. Mhm. mais biir kër yi léegi tas na. Mhm. parce que politique dugg na ba ci biir kër yi tas na biir kër yi da ngay dégg ay nit yu xuloo jëkkër ak jabar ak yëpp ndax affaire politique. xuloo ba jàppante ñu ne déeta waaye ñu dem ci école bi. mais léegi après ñun léegi fan la ñuy fan la ñuy jaar ba ci daara ji da ngay dem ci daara ji daara ji politique moo fa nekk. Mm-hmm. feneen ak feneen. ñu ngi mm-hmm. pervertir xale yi ci à travers les émissions. c'est ça pas pas les émissions à travers les programmes télé ñu ngi pervertir xale yi yaa ngi wax sànq xale yi lu ñuy lu ñuy fowee. Mm-hmm. mais les jeux qu'on propose aux enfants. du xeex rek. combat rek. xeex kese kese kese lañ leen di proposer wala des trucs yoo xam ne da leen di yóbbu ci ci ci ci affaire sexe violence sexe loolu kese lañ jàngal xale yi. Ah. <laughs> mais loolu la ñuy màggaale. loolu la ñuy màggaale. xam nga sànq. ah boo xoolee moom dafa wax ne. Euh, nañu def analyse bu gën a approfondie mm-hmm. maanaam am na toujours comme li mu wax cause directe kan effectivement mais gis nga bu ñu ko xootalee ba xootal aussi il faut ñu am courage ñun ñëpp pour ko que ne kon problème bi c'est un problème global xam nga mu tuddee ko mm-hmm. problème global alors cette classe politique la bi ñuy reprocher tous les maux du pays fu ñu jóge ñoom. ci ñun dañu jógee asamaan wàdd si suuf ay eh, sénégalais lañu ci ñun lañu jóge. xam nga mu ngi wax ñu construire le modèle de citoyen. mais classe politique boobu fii la ñu juddoo ci société bi ñu nampal leen fii. seen yaay yi seen papa seen ñu jàngal leen ci école bi. Mm-hmm. école bi sax am na sëriñ bu daan wax ne maanaam boo demee école primaire dañ lay jàpp jàngal nooy def ba mën a. compter. boo demee mooy secondaire ñu jàngal la nooy def ba euh, kenn du la nax boo génnee boo yeggee université nag ñu jàngal la nooy naxe nit ñi. ñetti étape la. waaw moo tax cursus bu gudd cursus bu foofu bu génnee rek. ñoom loolu la sëriñ bi wax. Mm-hmm. donc image la. maanaam gis nga perception boobu ñun ñi di acteur éducation foog ñu bàyyi si xel léegi nag soo xoolee ba xool li tax ma ne c'est un problème sociétal mm. mais ñun fii mais modèle de société bi dafa échoué bu baax sax dafa échoué parce que jikko yi ñoo rës dama lay jaaj benn exemple est-ce que da nga gisagum yow sa koñ maanaam ñun la perception que nous avons de la gestion dafa erronée mës nga gis chef de quartier délégué de quartier du am na ay drapeau ak yëpp. Mhm. ñoom pourtant est-ce que xam ngeen ne dañuy recevoir de l'argent waaw bien sûr waaw léegi da nga mës a gum dox ba gis délégué de quartier bu wax ne population bi exercice anne bi jeex na assemblée générale kaa leen ma ñaata moo dugg ñaata moo génn. lan lañ fi ko gis non. waa léegi loolu amul ci quartier bi kon au niveau de la commune mën nañ ko yaakaar. Mm-hmm. doo am doo gis maire bu koy def léegi mais loolu mooy màgg ba au niveau macro. kon ña ca kaw aussi li ñuy jàng si suuf loolu la ñuy perpétuer ba niveau ba ci sommet bi gën a élevé muy benn échec lamentable bu ñuy gis nii nga dolli si léegi. reddition des comptes gëmuñu ko. ok pourquoi parce que aussi masla bi ak le clanisme. Mm-hmm. maanaam tey délégué boobu day am na groupe bu ne ci koñ bi. Ah. ne ko affaire bi yow la. muy kii après aussi bu bare ndono la da koy jox doomam et pourtant ah, warul doon ndono xëccoo imaam yeeg lépp ci dëkk bi da nga gis imaam woote assemblée générale def la réduction des comptes wax ne Sénégal bon chaque donc problème sociétal lañ am maanaam problème de culture logique bi muy def mhm. boo pare gis nga dañu ne xale biy jóge ci kër gi jëm école ba dañu ne ndap la ndap nag lu dara newul mhm. wala am na lu ci nekk ni parce que en fait dañuy wax éducation de base parce que éducation trois étapes la dafa am li xale bi di jëlee kër ga li nga xam da koy jàng nag ci diggante école beeg kër ga am na lu mu fa war a jàngee mm-hmm. ba pare école bi ñëw nag dolliwaat si pour ñu am produit final mais boo jëlee tey xale bi jógee kër ga mm-hmm. déjà ndap loolu lu ñu si def xool leen li xew si kër yi papa est-ce que amati na temps jàngal xale bi éducation maman ana maam ji daan toog di def si moom ay jikko. léegi société nucléaire lañ am waxu doyen ñëwaat na c'est fini amatul nga pare donc kooku kon mun nañ bu ma doon tënk rek fi ma jëm mooy école bi modèle d'école dafa échoué. parce que da ngay gis que boo dugalee sa doom ba produit bi ngay am boo wàccee ñëw kër ga à la place d'une sénégalaise. je prends l'exemple de nos fii surtout man dama gëm xale yu jigéen yi su ma doom yi laa bëgga dam da da ngay am benn attachement si ñoom mais boo ñëwee bu ñu lay teeru da ngay jàpp ne man est-ce que doomu c'est une française moo may teeru <laughs> wala bokk ah sénégalaise papa bonjour ça va après delluwaat nañ seen téléphone ils sont eh, ñu ngi rek maa ngi wax ak par exemple benn débat un directeur de la formation de la communication mais kii ma dit que moom euh, day dem këram toog doom ji di déglu kii mu ne ko la mu ne ko BTS mu ne ko c'est quoi BTS mu koy wax c'est un groupe coréen et pourtant j'ai voulu lui dire que attention kooku alerte la hmm. parce que waa Corée ñoom pourtant dañu jëlaat seen école dañu dañu def xoola dañu dund lii ouverture seen école bi ñu ko defee une fois mu échoué ñu jël ay modèle d'école importé indi yëpp échoué ñu tëj yooyu yëpp par pare def une école japon purement coréen coréen dellu aux valeurs coréennes tëj école tëj ko ñàkk ko dañ ko ñàkk et aujourd'hui c'est l'une des meilleures école man mooy sama référence ah fu may wax moom parce que dama siy jàngat di ko xool chaque jour aujourd'hui l'enfant coréen étudie quinze heures par jour sur les vingt quatre heures loolu la ñu gëm mm. donc faut que ñu dellu si waat si si si mm. si si si yi mm. alors oui sénégalaise parce que notre école sénégalaise on n'a pas une école sénégalaise que de nom il y en a d'ailleurs qui l'école française au Sénégal voilà on n'a pas encore une école sénégalaise ah on a une école française au Sénégal c'est ce qu'on disait hier doyen je pense que li ñuy wax naan dëgg dëgg du romb nopp waaye même chose presque la wax moom la tenir dégguloo nga ki nga xam ne moo di El Hadj Malick mais aussi euh, ki nga xam ne moo di euh, Elimane Abikan l'ex Africa dégg nga li nga xam ne moom la ñu analyser mu mel ni ce sont les euh, presque les mêmes réflexions qui reviennent donc ñun xam nañ lan mooy suñu problème dañoo xamul nu ñu koy fajee voilà wala ñu ragal koo faj. parce que je pense que waaw ragal faj bi moom mbokk na ci. waa je pense que moom problème bi. Euh, bon <laughs> ko si góob bu bees. lu ñu lu ñu lu ñuy euh, mën a jàpp ci intervention su ma comprendre mooy que crise mm-hmm. bi moom ñëpp teg nañu seen bët. Mm-hmm. c'est-à-dire la société sénégalaise c'est une société en en crise. Mm-hmm. bon léegi euh, situation bu ñu nekk nii. Euh, am na ñi nga xam ne bon euh, bëgguñu ñu xóotal euh, débat bi. Mhm. ah y a un débat superficiel. Il y a de profondeur. Mmh. superficiel bi mooy débat politicien. débat profondeur bi mooy débat de la société. bon ce qui fait que soo xoolee bu baax c'est extraordinaire lu xew depuis premier janvier ba léegi soo ko comparé woon rek. ak euh, lu xew 88. lu mhm. xew 68. c'est exactement. Mhm. le la le, la même situation. Mhm. ba muy 68 muy 88 muy 2023 xoolal ni ñu massacrer les étudiants les élèves et les enseignants. Mmh. la la prison c'est pas pour rien que les prisons sont pleines que d'enseignants d'élèves et d'étudiants. Mmh. c'est la même chose en 88 c'est la même chose en 68. de 68, la cause de 88 et la cause actuelle, c'est une question de démocratie et de gouvernance. Okay. Mm -hmm. Senghor a eu les mêmes problèmes, Wade les mêmes problèmes. Macky Sall, c'est peut-être pire parce que il est né après les indépendances. On attendait de Macky la rupture. Mm bon, Macky n'a pas voulu faire une rupture telle que euh, les, les, les, Sénégalais attendaient. Euh, Euh, en matière de démocratie en matière de gouvernance en matière de liberté individuelle en matière de presse soo xoolee le système que mu euh, wax sànq ça système il plus répressif mais en 88 mm. plus violent contre Abdoulaye Wade et le PDS en 68 c'était plus violent contre les étudiants de de, de gauche mais soo sax même par exemple c'est extraordinaire en 63 Senghor dafa liquider PAI. Mhm. c'est c'est des enseignants c'est des enseignants qu'on a renvoyés de l'école mhm. c'est des étudiants qu'on a renvoyés c'est des élèves ensuite il a interdit le PAI. Mhm. c'est exactement ce qu'on en train de vivre avec le PASTEF ce qu'on a vécu avec André Diouf c'est ce qu'on vécu avec le PDS donc c'est une crise cyclique mais suñu nangul toog gëstu mais on va jamais s'en sortir. ñeme ko ñeme ko wax ñeme ko. je pense que le problème de fond bi mooy que crise bi nañ ko gën a analyser parce que c'est pas simple. Mm. du du ñun rek ah. saa boo demee pays africain pays européen yi l'école moom elle est en crise. mais en mutation en même temps. en, en même temps en mutation. <laughs> et je pense que ñun suñu problème c'est la maîtrise de la mutation. Mm-hmm. système. c'est la c'est la mutation qu'on n'arrive pas à comprendre mm -hmm. par exemple euh, je donne l'exemple des libertés mm mais ñun fu ñu jaar suñu démocratie mais kenn mënatul xañ Sénégalais sa liberté individuelle et collective c'est ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko c'est aussi bête que ça hein. les gens n'ont mm-hmm. pas accepté une décision de justice duñ ko nangu c'est pas pour Ousmane Sonko non c'est pour la démocratie depuis Senghor donc là aussi il faut que Macky son pouvoir quand même acceptent de respecter les libertés fondamentales mu ngi ci constitution mu ngi ci loi bi mu ngi ci système éducatif c'est ça qui nous régit et loolu bon c'est un consensus ku ko bëgg a rompre yow yaa indi instabilité mmh. bon maintenant pour le cas de l'école c'est frappant pourquoi c'est frappant parce que c'est l'école mooy fondement de notre démocratie mm-hmm. c'est le fondement de notre état c'est le fondement de notre société mais école boobu su dee moom mooy base société bi mais si la base ne fonctionne pas comme ni mu ko waxee la racine si la racine ne marche pas mais comment tu peux avoir un arbre des fleurs euh, ou un épanouissement même ou de l'espace de l'espérance. qui n'est pas profonde. J'ai même entendu quelqu'un, j'ai lu quelqu'un écrire que l'école c'est le poumon de l'économie sénégalaise. Mais par exemple. Parce que nee na <laughs> lorsqu'on a parlé d'agriculture ça on peut même pas atteindre l'autosuffisance qu'on ne peut pas parler de, mm. économique. L'école c'est le parce que tout part de l'école et tout revient. à l'école encore. mais par exemple jëlal Senghor moi j'ai essayé de voir ses mémoires ak lu mu bind débat Senghor ak les les tubaab la moom il a dit que l'économie c'est l'éducation mmh. toute sa stratégie pour bâtir c'est sur l'éducation ñii ñu koy wax ay croissance ñii ñu koy wax industrie ñii ñu koy wax agriculture ñii ñu ko il dit que là moi je pars du postulat de sur l'éducation et je t'assure que Senghor président de la République c'était presque le ministre de l'éducation nationale mhm. et parce que mënoo jël dara sans que mu yëg ko. dégg naa dégg naa enseignant yi daan jóge bitim réew seen dossier table lañ koy teg moom mooy valider kan mooy jàngale si ci réew mi am déet. ay tubaab lañu mais soo comparé moom moo koy recevoir directement soo comparé importance bu mu joxoon éducation. Mhm. bon Wade c'est pareil. c'est le même profil. Mhm. Wade bi mu ñëwee. ce que Abdou Diouf n'a jamais osé diir aux bailleurs de fonds. c'est l'ajustement de, de, de, du système éducatif mais Wade moo ko teggi Wade moo leen que yow seen vision de l'ajustement de de l'éducation moi je ne suis pas d'accord il a mis en avant ses, sa vision loolu moo tax ñu relancer l'éducation par entre 2000 et 2012 mais depuis 2012 ba tey jii c'est Macky Sall qui est honnêtement bon le, problème de l'éducation c'est un problème de, de leader politique de leader politique mmh. que la, la gouvernance qu'on a actuellement malgré que c'est des enseignants qui sont ministres de l'éducation de l'enseignement mmh. supérieur les enseignants n'ont pas confiance gis nga affaire boobu c'est extraordinaire c'est-à-dire que discuter nga ak nit ki ngeen am accord waa ji ne la demal liggéey man dinaa def. dinaa ko gérer li ñu d'accord. loolu la waxi sénégalais naa ko gérer. depuis deux trois ans. seen problème yëpp mooy mais yow tout ministre pourquoi tu n'appliques pas ce qu'on a décidé. waaw c'est ça. Mmh. et pourtant ah. c'est doyen lu mu lu mu développé nii moom am solo. surtout bu njëkk bi cest dire euh, xam nga euh, tout ce qui se passe. Euh, c'est le résultat d'une longue lutte citoyenne politique mu expliquer ak euh, moment yi les péripéties euh, yi fi am mais pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui euh, jusqu'à 2023 depuis que plus de 60 ans que il y a eu quand même des dynamiques c'est vrai antagonistes contradictoires ñu xeex ba am ñu jël lépp dessus mu wax na fi PA yi xam nga PA yi ñooñu ñoo ñoo xeexoon dëggantaan pour ñu am indépendance ne suñu indépendance joxuñu ko ñu ko xeex mm-hmm. ñi buggoon toog ànd ak France lañ ko jox moo tax ba tey nii on dañu leste ci lien boobu noonu lien boobu moo ñëw ba tey suñu système éducatif di produire des inadaptés culturels et sociaux mm-hmm. parce que c'est encore un, un même modèle qui est mais mais li ma ci buggoon ñëwaat mooy parce que c'est pour permettre un peu d'envisager ñun lan moo war a nekk solution yi parce que y bokk eu beaucoup d'acquis mm-hmm. wax na ci 68 après Senghor a fait pas mal de changement et ba commencé gis na ni sax euh, foog ñu xalaat joxe réew mi parce que mu ngi metti les défis sont devenus économiques alors qu'il n'avait pas lui les moyens économiques mm-hmm. il était plutôt versé sur sur sur autre chose muy wut profil boo xam ne ne war na mën a gérer des enjeux économique mm-hmm. d'abord Babacar Ba qui était un excellent économiste ministère, mmh. ministre de l'économie et des finances à l'époque ensuite c'est c'est Abdou mm-hmm. mais après Abdoulaye Wade ñëw qui a lutté pendant vingt six ans dans une certaine opposition euh, mais toujours ñu am ay ay solution pour stabiliser bu fekkee ne crise bi agsi na à un certain niveau mm-hmm. mais ba léegi laaluñu fond bi euh, loolu moo tax euh, récemment Abdoulaye dans son règne Euh, am na lu fi xewoon quand même yoo xam na ni on avait reposé le problème de fond euh, boo ko jëlee par exemple li indi assise nationale après que l'opposition a boycotté les élections bon mmh. espace bi vide bon ñoom ils voulaient créer surtout un nouveau un nouvel espace politique pour faire face parce que était out du du circuit euh, officiel du débat public parce que newuñu woon assemblée et mais c'est loolu bu ñu ñëwee rencontrer justement les organisations de la société civile je me rappelle j'étais encore au, au forum civil bi ñu ñëwee seet si forum civil Mohamed Mbodj yàlla ko yàlla yërëm moo fa nekkoon on les a demandé mais yéen assises yi ngeen bëgg a def ana terme de référence yi amul woon les acteurs politiques avaient agité les assises nationales parce que amuñu woon un instrument politique pour exister mais ensuite également il voulait contrecarrer l'organisation du sommet de l'OCI euh, ba Abdoulaye Wade doon def parce que dox na xam ne doon na ko jox un aura international et cetera c'est dans les bureaux du forum civil que les termes de référence du régime national sont sortis parce que dañu ne non il faut que qu'on pose un débat sérieux profond ñoom ñëpp leader yëpp koy laaj am na pendant six mois daanaka foofu lañ doon daje avant ñuy dem ci kër euh, Ahmad daa soxoon di fa daje. terme de référence fa la jógee méthodologie mais li ma ci bëggoon wax mooy assises nationales boobu au mois moo permettroon ñu poser en profondeur suñu problème impasse démocratique bi nga xam ne ni déjà signalé woon na foofu. Mhm. mais qu'est-ce que encore les politiques ont fait c'est toujours un. c'est-à-dire liggéey bi def nañ ko. indi nañ leen sur le plan technique jox leen méthodologie boo xam ne dina toucher Sénégalais li fu mu gën a sori ci Sénégal nga toucher ko mu am kàddoom wax ci toutes les questions qui sont posées yenn yi sax da nga ko doon poser en référendum en délibération yenn question yi par exemple sur lage du président ak yu mel noonu yu mel noonu mm. mais bu liggéey bi sottee ba pare ñun nga xam ne ne defuñu politique dañuy delluwaat suñuy organisation. waaw di ko def liggéey mais kan mooy nekk ci pouvoir bi pour appliquer ce sont encore les politiques mhm. mais là bi bi alternance amee parce que après assises yi bu leen fàtte élection 2009 yi si topp mhm. d'ailleurs c'est le beaucoup d'acteurs de la société civile ànd ak politique yi dugg gagné gox gaxaat yu bëri bëri et la suite mhm. du pouvoir de Wade a commencé en te dynamique boobu moo progressé ba 2012 mais 2012 ñoom ñu jël pouvoir ñu ne woon ci assise parce que Wade bokk si woon ñëwoon ci assise yëpp ak Macky mi génn en tout ñëw signé ne bokk naa. ñoom ñu jël pouvoir qu'est-ce qu'ils ont fait lépp lu génnoon foofu nga xam ne ni ñoom defaroon nañ leen programme boo xam ne programme bu légitime la parce que peuple bi moo ko moo ko produire ñu jël ko teg ko de côté respecté wuñ ci dara. man je me rappelle parce que boobu maa ngi woon commission comité national provisoire des des des assises nationales. am na réunion yi ñu def entre deux tours Macky Sall toog maa ngi fa gars yi jóg di wax rek ma ne <laughs> gars yi dañuy commencé séddoo ay poste faloguñu te justement c'est la réponse que Macky leur avait donnée loolu la leen wax keroog si salle bi mooy leen vous êtes là en train de me parler comment gérer pays et cetera alors qu'on n'a encore gagné que le vieux il est capable de tout mobilisez-vous pour qu'on gagne le deuxième tour d'abord j'étais témoin bilaay d'abord dégg donc mu mu mu embar embarqué leen déjà foofu ñoom woowee nañ une première faiblesse c'est-à-dire ceux qui sont devenus ces collaborateurs juste après mu jël pouvoir bi donc bu ñu jëlee pouvoir bi ñoom ñoo njëkkee daw man fii am na benn réunion dañu pare j'ai fait une note bi ñu falee ba pare ba fal ma Moustapha Niasse président assemblée nationale j'ai donné la note ma ne ko mais monsieur le président de la République l'occasion ou jamais que vous avez aujourd'hui pour que nekk finalement programme mooy vous invitez le comité de prudence nationale à l'Assemblée nationale def ko débat public sénégalais yëpp xool lan moo nekk réellement comme conclusion assise yi mhm. ñu bokk ko parce que vous avez reçu le président Hollande il y a pas longtemps à l'Assemblée nationale donc war nga ko mën a def pour notre comité national provisoire jox ko nag bi mu yóbbu fourage daan xëdd léegi loolu ñëw ñoom ñu teg loolu teg de côté Aziz parce que jël nañ pouvoir bi les politiques pour pour montrer un peu leur comportement ak ñoom nan la ñuy en fait les logiques yoo xam ne ñoo war a régler problème fii président Macky Sall ñun on attendait de lui les deux premières années mu def les réformes institutionnelles yoo xam ne ni danga koy tibbee ci Aziz rek rek la ko fu ko defoon problème yi am tey jii du am mais il a conservé tous les pouvoirs du président alors que wan nañ ko naka ngay def pour wàññi. les pouvoirs du président ñu génnee de cette hyper présidentialisme yoo xam ne dafa bokk ci problème mu réew mi dégg nga léegi moom après finalement avec la pression mu mettre en place le comité national CNRA des institutions configuré waat que Amadou Matar Mbow ñu def ci 700 700 millions de nos maigres ressources ñoom ñu def tamit travail bu liggéey bu mucc ayib ba sax def ci benn buuñaa maanaam rédiger la un projet de constitution basé sur ça pour nga mën ko appliquer. lan la njëkk a def ah non non non on c'est pas à vous Ismaïla Madior mu njëkk a génn c'est pas à vous de faire la constitution c'était pas dans votre dans la commande. <laughs> Macky Sall génn ne oui je prends ce que je veux le reste et mu def ci tiroir yi tu as vu l'attitude des politiques. Mm-hmm. donc ça a déçu tout le monde. ñëpp ñu engagé woon ci assises yi ñëpp ñu gëmoon ci commission nationale de réforme des yoo xam ne dañ na ko basé wul ci assises yi. ñu teg ko fële continuer ne def loo xam ne mooy leen arrangé. loolu moo tax tey bu ñu nekkee encore ñëw ay joutes yu mel nii gars yi kii ne man diwlaa faral diw laa faral ma leen yéen a ngi caaxaan ñi ngeen di faral loolu pouvoir bi rek moo leen tax a jóg tey buñ ci jotee suba dootu leen dootu leen xam ne seen discours bu ñu nekkee ci opposition ak seen discours bu ñu nekkee au pouvoir du benn te du benn yoon ñaari yoon ci Abdoulaye Wade la njëkkee Macky Sall après ñu ne les réalités du du du de l'État loolu donc à partir de maintenant il faut qu'on fasse qu'on soit attention mm-hmm. ñu fexe. qu'on soit beaucoup plus lucide. voilà moo tax ma ne leen man mooy wax ma ne parce que c'est dans des situations yu mel nii moom moo gën a nekk ñiy liggéey ci ay plaidoyer xam nañ loolu c'est des moments les plus propices pour indi des réformes importantes. Mm-hmm. moo tax même même dialogue bi ñu woote damay ne ma ne dialogue bi benn intérêt rek c'est pas ñoom lu ñu régler nii ah li ñuy wax euh, ay affaire kii day bokk kii du bokk xam nga policiers loolu rek mooy leen intéresse c'est-à-dire c'est encore dans leur propre système noonu lañ ci maintenir pour avoir toujours les leviers à main mm-hmm. mais nous nous on va au-delà ma ne peut-être dialogue bi leen rek la mën a permettre qu'on mette le doigt sur les véritables réformes à mm-hmm. li nga xam ne moo posé problème ba tey moo tax président di toog fii di def lu ko neex. comme Cheikh Bamba Dièye l'a dit société civile teew nañ ci dialogue bi. Ah, y avait y avait y avait les euh, Moudia Cissé. waaw am na ñu fa nekkoon yéen seen seen côté est-ce que envoyé nañ leen carton d'invitation. Euh, non non man dew ma parce que nous on était surtout dans mesure xam nga mesure bokk. on l'a on l'a on l'a initié. justement c'était pour avoir un dialogue citoyen. donc dialogue bi daf ñu fekk si. ci ci logique boobu. mais kenn convié mais malgré ça ils nous ont pas conviés. mais am organisation société civile yi mais mais mesure y a beaucoup d'organisations de société civile yoo xam ne ñu ngi woon ci biir mais mesure ba ñu ngi ci man man man ma question qui revient doyen moi j'ai l'impression que c'est juste cercle boo xam ne ñi nekk par exemple ñenn ñi nekk mesure ñoo nekk SOSP bu barki démb ñoo nekk euh, vingt 24 ñoo waaw mais mais du ah, benn c'est-à-dire que il faut il ñu expliquer ñu quoi on parle de société civile mais on se retrouve plus là xam nga xam nga lu tax parce que société mm. civile Sénégal boo koy wax y a boire y a boire et même moi je suis très critique par rapport à ce que vous appelez société civile parce que c'est vous qui nommez les choses ainsi ah, eh, ah. société civile di wax nga ne société civile di wax nga ne société civile et cetera mais société civile au fond tu vois c'est pas quelque chose euh, de juridiquement structuré organisé c'est-à-dire ci ci protéiforme c'est lekk moo nekk si biir c'est-à-dire c'est des associations c'est des ONG c'est des personnalités individuelles ñu bëri ñoo si nekk am na su ñoo xam ne dañuy liggéey ci yenn secteurs yi ñu ràññee am ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci yeneen secteurs yi et cetera mais mënuloo boole ñëpp nga ne lii mooy société civile loolu amagul. c'est un débat que personnellement je pose par rapport aux defee dara nga ne c'est des acteurs moi je préfère. mais mais quand j'écris quand j'écris je n'écris jamais société je dis les organisations citoyennes man loolu laay wax. ok ma parce que euh, bu fekkee ni dara dafa am gars yi la société civile. par exemple état danaa non il me faut la société civile yéen da naan il faut la société civile mais ñoom dañuy dem xool ay diw na leen yéenay société civile parce que ñoom lañ gën a amal relation affinité et cetera ñoom la ñuy woo mais du ñu def le travail rigoureux d'observation de voir exactement par rapport à telle situation mais quels sont réellement ceux qui travaillent sérieusement sur ces questions hmm. pour nga woo directement sur une base objective ñoom lu ñu def travail boobu c'est souvent très paresseux wala diw moom lañ xam wala moom lañ gën a gis. ci kii et cetera. monsieur Kane c'est dans tous les secteurs du Sénégal. ah mais loolu mooy la télévision on dit que dañu woo ñu ñu ñu. waaw mais manque de rigueur wala kii moo siiw. waaw manque de rigueur boobu nag Sénégal. dafa nekk suñu problème société. c'est ça c'est un problème de culture ça. tu vois mais il faut ñu xoolaat affaire yi. même ñu noonu la ñuy fonctionner c'est-à-dire. Ah, yéen il faut seet ay nit ñoo xam ne boo leen invité peut-être ñi ñi la ñuy bëgg a gis ñi la ñuy bëgg a dégg et cetera. ngeen ne parce que non man il me faut niveau de personne. alors que am na keneen koo xam ne moo gën a pertinent ci liggéey bi mais mais fasul. lu mat quoi. xam nga dafay voilà yooyu yëpp dafay am. non demul noonu sax demul non demul noonu. wala ñun ñëpp ñi peut-être du yéen ñëpp. waaw ñenn ñi du ñëpp kay. waaw peut-être du yéen ñëpp mais bëri na si parce que bu doon bu doon éducation rek am na ñu gën a bëri wax que suma waaj. noo xam nga bëri wax de. non non maanaam ñoom la ñuy gën a. SAEMS moom tout le monde connaît SAEMS ñoom la ñuy gën a gis. mais man je suis le plus grand syndicat. ah oui waaw mais voilà déjà yéen seen problème mooy loolu vous êtes tellement nombreux ci éducation bi ku nekk yaakaar ni moom rek la keneen ki bokk. non non nekk bu ñu ci taxawee te dañuy dañuy ñu ñëwaat ci yéen. ne ñu ñëwaat ci secteur ñu ñëwaat ci wàllum école. sans s'adresser au SAEMS parce que ça c' est des chiffres. SAEMS am fu mu banque. du point de vue de la représentation SAEMS dafa am fu mu fu mu beddee ko créé demal boppam. non jamais non débat foofu laa bëgg. non waaw mais école ba tey ci école ba tey ci école. bëgguma ñu ci bu ñu taxawee ci seen mbir moom yéen lu njiig njaaga yéen yeneen njaag. ah bon yéen jàngalekat yi non non école sénégalaise école sénégalaise bu naree yàqu. am ngeen ci pàcc bu am solo ku nekk di xëcc couverture bi ni mën a ñaata école Sénégal ñaata ñaata syndicat bi. man waxuma côté syndicat bi ah, sax dara mais ñoom ku nekk di xëcc di euh, wax si tu permets c'est-à-dire que dafa doon développer benn idée. qui me semble quand même non non foog ñu très intéressant ah Birame il développait une idée bon la dernière fois Siste posait ce problème la société civile la mm-hmm. nébuleuse c'est-à-dire que euh, c'est dafa am confusion mm-hmm. comme ni ñuy waxee politique politicienne. Il a une société civile mhm. qui est dans la politique, ouais. dans ses fondements. Il y a une société civile politicienne. Maintenant, le problème que nous avons, pas un syndicat, mais syndicat, il faut beaucoup de société civile du, point de vue de la, de la gouvernance. Mhm. Parce que le syndicat, il a dit, il est à l'école. Mais si on demande dans son territoire, tu vas soo demoon dans d'autres secteurs économiques tu vas le trouver donc le syndicat il est transversal cest à mm-hmm. il gère les intérêts d'une corporation mais dans le secteur de l'éducation mais c'est le pilier de la nation donc ñoom dañu bokk ci société civile parce que c'est un contre-pouvoir mm-hmm. même le chef d'entreprise qui n'a pas de syndicat il n'est pas dans le modèle quand tu es chef d'entreprise tu dois accepter un syndicat parce que syndicat mooy défendre les intérêts de des travailleurs moom moo lay euh, c'est eux qui gèrent la production donc kooku mënoo ko bañ a boole ci gestion c'est la même chose pour la société civile la la vraie société civile entre guillemets c'est-à-dire elle a de l'expertise muy code électoral muy constitution muy gestion de de l'État muy la coopération internationale mais la justice civile, c'est de l'expertise, c'est pas des chômeurs. C'est un contre-pouvoir dans ce sens que, quel que soit le domaine, ils peuvent t'apporter une expertise pour t'accompagner en tant mmh. qu'État. Mm-hmm. Mais malheureusement, nous, nous problème, bon, depuis les Diouf hein, jusqu'à Macky c'est-à-dire que nous, politique politicienne, nous Mais la société civile, ko nous sax c'est ça qu'ils appellent encagoulés. Encagoulés, des C'est-à-dire ils stigmatisent le vrai contre pour ramener la société civile politicienne qui mange à, à leur atelier, qui a les marchés, qui a euh, les débouchés, qui est assisté. c'est comme les partis phagocytés par le pouvoir. Il y a le société civile. Est-ce que loolu moo <coughs> dañu doon nekk nii rek ci superficiel bi ñenn ñi bokk. ñu bàyyi deux deux ans yu mujj yi. deux euh, deux mille vingt deux deux mille vingt trois gis nga ku nekk ñi noppi woon depuis deux mille douze commencé nañu génnaat di wanewaat ni ñoom société civile alors que ci diggante bi am na benn société civile bu ñu gis mu continuer di xeex même même xeexam. voilà ci lancem quoi li ma bëggoon daaneel c'est-à-dire que y a ce problème la mais quels que soient les problèmes crise du politique. ça c'est c'est avéré mm-hmm. politique on a plus confiance en lui quand même Maintenant, est-ce qu'on doit rester dans ça ou est-ce qu'on doit aller vers une perspective citoyenne quand même le, le socle pour ñu génn ci crise bi gis nga. il faut qu'on ose le changement regarde regarde ce qui se passe actuellement. les, les gens qui te donnent les solutions là ils sont ni au pouvoir ni dans l'opposition. Ouais. ñoom xam nañu lan mooy intérêt Sénégal. mais solution yi kenn du ko utiliser. mais parce que y a des parce que qu' on, il faut... qu' on yoo xam ne. voilà parce que ñiy joxe solution yi. du ñoom ñooy nekk position appliquée. boo boo bëggee tari boo bëggee tari tari tari bindub jàmbur. da ngay somm c' est ça le problème. bu fekkee mun nit mën nga mën nga sàcc idée mën nga sàcc idée mais doo ko développé. Euh, parce que l' essence même day fekk yow doo ko maîtriser. <laughs> c' est dommage moo fi am ah. dama doon def benn plateau. may expliquer li xew Sénégal actuellement. Mmh. beaucoup n'avaient pas compris. je parlais de la bipolarisation de l'espace public national. ça veut dire quoi qu'aujourd'hui ñun dañu dugg ci benn piège. di dëkk yëpp en deux camps. waxu il faut bien suivre. boo xoolee depuis. non romb ko. avant ça 2019 alors da ngay depuis 2018 19. Mhm. dëkk bi léegi deux camps lañ ko diviser deux camps la soit da nekk ci mouvance présidentielle bi wala nga nekk opposition ñoom ñaan ñëpp ñu créer seen ay camps taxaw mooy li may expliquer sànq polarisation boobu nag dafa dem ba gangréner alors même la société civile daf ko corrompre société civile bi. finalement au lieu mu nekk ce pôle indépendant bi taxaw entre les deux camps taxaw engagé rien qu'un combat citoyen pour l'intérêt national mmh. société civile boobu dafa mujj subir ah le dictat au point que da nga gis ñi basculer jëm fii ñi basculer jëm fële donc comme li mu la wax sànq pour nga gis ci ñu nga xam ne dañuy taxaw temm ci digg bi pour créer ce troisième pôle la qui s'impose alors ñooñu bëreetuñ parce que ñi am courage bi ah loolu nag dafa war a am ci réew. parce que mais benn xeer nekk société civile. waaw acteur politique yi gis ci seen bopp. waaw dañuy ñëw wala waruñoo ñëw. mais évidemment non foofu nag dama lay wax ne attention <laughs> il faut que nit ñi comprendre ne day am nag léegi ci biir évolution. combat national bi ñuy mëne foo xam ne day am ay points de convergence entre euh, société civile ak parce que am na combat par exemple le combat mais waruñu am respect des principes de l'état de droit kooku attention ce n'est plus un combat du, du, du, de, de la société civile seulement, c'est la société civile, mais et de même des partis politiques qui se sentent dans l'affaire là. Hein? Mais, mais boo jëlee non pas allié mais dama bugg a wax ne boo jëlee même par exemple tey li ñuy wax le respect des dispositions de la charte fondamentale de notre pays xam nga foofu tamit les juristes dañ ñu nax dañ ñu ñëw loo ne voilà non non non non ça c'est pas une c'est une question ci nax ñu la ñu dëkk que le citoyen doit chercher à comprendre parce que boo delloo si les droits quelles sont les sources du droit ce sont les us et les coutumes bien sûr fa la droit jóge les us et les coutumes mooy les sources du droit kon c'est société à partir de ce moment donc bu ñu ñëwee ñu juboo ci dara ba dëxëñ ko def ko ci li ñuy wax la charte fondamentale ku nekk war nga ci mën a am point de vue te mu méngoo ak li nga xam ne moom la société bi d'accord parce Euh, soo xoolee tey li jaxase société bi yëpp mooy li Rousseau waxoon Rousseau nee na sàcc bi njëkk ci àddina bi mooy ki njëkk a dagg suuf taxaw ne maa moom li ne gaa ñi kaa ñu liggéey diw liggéeyal ma lii di mu ne mooy sàcc bi njëkk bu ñu doon jàpp sàcc bi njëkk ci àddina kooku mooy sàcc bi njëkk bi ñu demee ba société bi évoluer ba kooku imposer loi am ba nit ñi rejoindre ci affaire boobu alors mu ñëw ne kon tey li mën a réglementer société bi mooy le contrat social de Rousseau. Rousseau. contrat social kon ku nekk da ngay am looy war a assurer ci biir contrat boobu pour que ñun ñëpp ñu mën a juboo ku nekk xam fan ngay yem tamit mais contrat social boobu la ñu rompre fii Sénégal. amul mais quand Rousseau dit contrat social Hobbes a dit. waaw le Léviathan. waaw avec sa démarche. te loolu est-ce gën a jege. la démarche du Léviathan que loolu la ñu gën a pour dire que tey tey tey tey. gis nga euh, pour man. solution bi dañuy dellu ci contrat social bi mais beneen solution bi aussi mooy faut que ñu jéem a tabaxaat jikko yi te tey dama ko wax tabax jikko yi kër ga la kon politique bi ñu war a développer au niveau de la l'éducation de base foo ko nit ñi jëlaat temps former jàngal euh, euh, euh, seen doom yooyu parce que dañu ne ñaari ween yi nampatal am réew boo xoolee benn bi éducation la mais beneen bi wér-gu-yaram la Mm. santé parce que en fait ku wérul mënul def dara kon école boobu foog ñu doole laat mais fi ñu koy doole mooy d'abord kër ga xale yooyu di génn may wax ne ay ndab nañ si def ay jikko yu baax jikko yooyu bu ñëwee école bi ñu tijji tey j'ai donné sànq le model coréen je peux donner le modèle japonais ñoom ñëpp bi ñu gisatul li ñu xam dañu tëjaat même Senghor bi ñuy wax sànq attention Senghor dafa hérité d'une situation bu xam ne tey munoo moom moo indi l'école de Jules Ferry moo ko may doole l'école de Jules Ferry la première école a été ouverte à saint bi école laïque waaw école boobu la ñu jël modéliser ko jox ñu ko mais avec surtout les quatre communes vous vous rappelez loolu moo indi évolution ba tey prototype bi ñu am méngoowul ak li ñu war am kon foog ñu réajuster réajuster boobu day laaj audace bi ñu demee ci assise deux deux mille quatorze courage politique. mais dañuy ñëwaat foofu parce que fi ma koy waxee moom fi ma d'accordul ak Camara mu ne sànq jàngale non attends. gis dañuy taxaw foofu monsieur Youm parce que dañuy dem. waaw parce que il faut mu leer ne la politique éducative. ki ñu ko dénk mooy état bi. waaw loolu moom dinañ ci gën a xuus. waaw je sais pas mën naa dem. alors bu boo demee ci réew xam nga tey li may wax sànq Senghor moo dooleel école boobu. Senghor moo ko dooleel bi mu paree nit ñi gis nañ ne donc modèle boobu moo fi nekk ba ñu mujj woote les états généraux de 1981. 1981 lu tax ñu ne nañ def états généraux parce que dañu ne modèlu école bi ñu bëggoon amuñu ko nañ ko changé ñu wut beneen école ñu def états généraux ba pare mu échoué waat amuñu ñu demaat 1985 Iba Der Thiam ñu ne kon nañ def école nouvelle yéen a ngi yëpp. fàttaliku école nouvelle ñu ne école bu gën a méngoo ak li ñu soxla ñu defaat wut ay modèle wax defati ay résolution doxul ñu demaat ba ci kanam même entre temps ñu changé les lois d'orientation changé nañ la première loi d'orientation de 1971 mu dem ba ci biir ñu ne amuñu école ñu defaat la loi d'orientation de 1991 jubbantiwaat école alors entre temps ñu ñëwaat ba ñu xool ne lii yëpp doyul ñu demaat aux assises de 2014 assises de mille 2014 yi nag mën naa d'accord ne liggéey nañ fi liggéey bu mucc ayib mais am na liggéey boobu mu ngi ci tiroir yi bokk na ci li ñu wax foofu ñu tënk ñu ne bu ñu bëggee am école dañuy def la refondation de l'école maanaam li ñu fi am ni dañ koy tas ba pare tabaxaat ko moolaat ko loolu mooy refondation moolaat kon bu ñu koy moolaat ñu ne lan mooy mujj mujjantal gi ñu ne nañu def ba am école bi mën a tabax modèle citoyen bi ñu soxla ñun ñu ne boobu modèle citoyen ban la nga dellu à la de d'orientation de 1991 mu lay wax ne kooku dafa war a nekk situation boo si citoyen bi ñuy def si moom suñu ay valeur mais ñun la mooy suñu ay valeur du jom du fulla du ngor du fit <coughs> du fayda du kersa élèves yi di génn nii ñoom loolu valeurs yooyu lañ def si ñoom ah ba pare eh bien c'est ah, c'est la politique éducative non non c'est la politique éducative man je parle de macro. parce que les enseignants à vrai sont des prestataires de service comme yéen mu ngi mel ni suñu amee euh, un code de la presse ak des orientations ñu ne leen fii la ngeen dem mais attends. mais l'un n'empêche pas l'autre ah. parce que ñun les enseignants lu tax ñu lu tax ñu leen di lu tax ñu leen di indexer tout le temps uh-huh. parce que ñun enseignant bi moo doon nekk. moo nekk exemple bi. ma jaay la ma l la enseignant mooy choisir programme bi ñuy jàngal xale yi. en histoire moi je parle programme. xam nga xam nga dans le programme bi nag mooy. jàngale jàngale jàngale bi mooy solo si. nit ki pour nga jàngal ko. waaw il faut mu respecter la. waaw. koo a doon même école. non kooku même gi damay wax rek. li ma xam ne damay nga xam ne moom la sénégalais bi toog nii yaay bi toog nii du ñu seetaan wala papa bi toog nii du ñu seetaan te xamatul exactement lan mooy école bi nit ki pour nga jàngal ko. mu dugg ci boppam da lay jox cër. xam nga lu tax ma ñun syndicats yi dañu toog ñu reconnaître ne l'enseignant n'est pas n'est plus un modèle. depuis lu tax mais lu tax non nañ jàngat lu tax xam nga lu tax da ngay dem ba yow boo taxawee sa classe salaamaaleykum ñu ne nga ne xale yi ku bëgg a nekk jàngalekat suba ñëpp ne nii nga ne leen ku bëgg a nekk mbër xale yëpp yëkkati kon modèle bi lu tax parce que en fait dañu dem ba statut enseignant bu njëkk bi fi Senghor di ne ak les années 80 moo effrité wu rës rës mooy bu ñu demee ba ci payoor gi jàngalekat am li jaase yi gën a kawe ñu dem ci payoor gi mu am li gën a néew ba moom amul sax lu mu suturalee boppam ñëpp yàpp ko. kenn bëggul ne. non non je suis désolé man man dama am benn problème côté boobu je suis d'accord ah. je suis d'accord Elimane. waaw nga xoolal non je suis d'accord. même rek ma daanaka waaw même les statuts statuts non non man d'accord. statuts bi waaye foofu foofu foofu foofu foofu foofu foofu xam nga parfois lan moo may xaw a déranger tuuti. Eh. ñun Sénégal dans tous les secteurs. ku nekk da ngay wax rek yow da ngay kaas amuñu lii suñu statut bi lii ñu ngi ñuy fay lii. mais gis nga gis nga monsieur monsieur je suis désolé. xaaral xaaral xaaral même rek même rek s'il te plaît.